daleen ak jàmm procès Khalifa Babacar Sall di maire bu ndakaaru nar a ubbeekuwaat tey ca tribunal bu dakaar loole tax ba réew mi quotidien di ñu xamal ni yëf yi nag mi ngi doog a tàmbali ndax nag maire bu ndakaaru daal ne wut ñeenti avocat mu bokk ci ñoom kii di maître El Hadj Diouf waa Manko ñoom li ñu bëgg mooy rek ñu daal di takku bu baax rek ngir dem soutenir ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall leneen lu fës ci xëtub yéenekaay bile di réew mi muy pëccëxoo bi am ca parti socialiste procès bi dox ci diggante Barthélémy Diaz ak Ousmane Tanor Diagne day daan nañ koy dàkkandi ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub janvier bi ñu dëgmal les échos ci wet gi daal di xamle ni ñi nga xam ne ñoom ñoo nar a nekk témoin ci procès Khalifa Sall bi lay bokk na ci Moustapha Niass Idrissa Seck Ousmane Tanor Diagne Pape Diop ak kii di Amadou Ba ñoom ñooñee day la ñu daal di convoqué les échos di ñu xamal ba tey ni convocation yooyu la ay huissier ñoo ko daal di yóbbu waaye nag ay laaj sampe na ci kaawub ki nga xam ne moo di Amadou Ba ak Birima Mangara la kàddug les échos yooyu la di xam le ne nag ouverture procès Khalifa Sall tey jii ci tribunal bu Dakar nee na day bi yépp ñoo nekk ci baar bi daal di fësal nataalub ñenn ci ay témoins yi nga xamante ne mën nañ leen faa cité l'enquête yéenekaay ba tey ci lu jëm ci procès Khalifa Sall bi di ñu xamle ak ki nga xamante ne moom ma war a àtte bu Ndakaaru di juge bi di Lamotte enquête fësal jaar-jaaram ak bi muy génn ci école nationale d'administration et de magistrature ci atum 1993 waral itam ni juge bi di lamat def na lu tolloog ñaar fukki at ak juróom ci carrière moonte day niñ ko xamee ni mu amee fit ak mën a wax dëgg moom juge bi di Malick Lamotte mis nañoo tudd turam ci lu jëm ci wàllu corruption bi nga xam ne takkaloon na magistrature bile ci atum 2006 wax ci wàllu dialogue politique ak Sud Quotidien tey jii di talaata ñaar fukki fan ak ñett ci weerub janvier atum 2018 ñu nar a dekkalaat li nga xam ne moom moo jëm ci négociation yooyu le ñi di waa société civile bi dinañu daal di kon dugal seen loxo ngir nag daal di gindi askan wi ci li nga xam ne moom la ñu dippee dialogue de sourds bi dox ci diggante nguur gi ak ñi nekk ci l'opposition bi Abdoul Mbaye njiital acte moom la ñuy fekk ji ci L'As quotidien moom nag mi ngi xam le ne kàddu njiitu réew mi Macky Sall mi doon wax la patrie avant le parti day lu mu mel waroon na lool ak li muy gis jamono ji ndax Abdoul Mbaye mi ngi xam le ni jamono ji nag njaboot gi la Macky Sall jiital doog ci teg réewum Sénégal nee na itam guléet mu daal di gis jëwriñ ji ñu denk lépp lu jëm ci wàllu koom muy sóob loxoom ci wàllu politique ki fi nekkoon njiitu jëwriñ yi ci gouvernement Macky Sall bile di wax ba tey ni ñu ngi jubal ci ay jafe-jafe jëm ci wàllu koppar élection présidentielle atum 2019 équation premier tour yi la zoom info moo sampub laaj di wax ni rek ñëpp ñi nga xam ne ñoo fale ci mouvance présidentielle bi la ñu ngi jëm ci ay campagne ki nga xam ne moo di njiitu jëwriñ yi di Mahammed Boun Abdallah Dionne zoom info di ñu xamal ni moo ne ci suuf de jiite li nga xam ne moo di commando yi ay meeting de ralliement waaye tamit ay nit yu jóge ci yeneen parti di wutali APR la ñuy gis fële ca Louga Rufisque waaye tamit Podor apériste ya ca Côte ni seen njortu rafetul torop ci ñu jàll ci premier tour bi le fële ca Koungheul nag jaxasoo gu metti moo am ci diggante apériste ya fa nekk ba tax sax ki di Angélique Manga moom mooy sóob loxoom ci mbir mi ngir mën a dalal xel yi fële ca Thiès nag ñii di socialiste yi day ñoo bëgg wuutu ki nga xam ne moom moo di Thierno Alassane Sall ci jamono ju nga xam ne Zoom Info mu ngi samp ab laaj di ne rek ni ana kan moo war a jiite li Manko Taxawu Dakar 24 divorcé ak goxam gii di Fatick jamono ji nag li nga xam ne moom la ñu nemmeek foofee ca Fatick mooy rek ñi nekk ci APR seen xel dafa xaw a jaxasoo leneen lu nga xamante ne nag jàpp nañu ni moom moo sooke mbir mu ni mel mooy rek deltu ginnaaw bi waa parti socialiste ak ñi nga xam ne ñoo di AFP deltu ginnaaw ci lu jëm ci wàllub élection yi bu dee ca Fatick ña ngay wax lu jëm ci wàllub élection fële ca Richard Toll moom nee nañu déet bëgguñoo teg gët ki nga xam ne moom moo di Souleymane Jules Diop l'évidence di ñu xamal ni rek moom moo mee di ministre bi day waa Richard Toll nee nañu bëgguñu ko gis ndax nag dafa yëkkati woon ay kàddu yu tegginewul jëmle ko ci ki fi nekkoon xalif général des Tidianes di Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin loolee tax na day ba moom Souleymane Jules Diop jamono ji l'évidence di ñu xamal ni mooy persona non grata foofee ca Richard Toll Diaw dugalaat loxoom ci l'enquête bi nga xam ne moo ñeel la xewoon foofee ca forêt bu faa Bayotte ki nga xam ne moom moo jiite woon comité intervillageois bu Bofadey ginnaaw bi mu génnee àddina autopsie bi daal dinay xamle ni dafa daal di rek noyyi ab produit toxique bi nga xam ne dafa daal di yàq yenn ci ay organam mooy rek gendarme yi ñu ñu jox mooy moom Burama Tombulu Sané mile dafa daal di xaru wala sax dañ ko posone ñu ngi woy ba tey itam di teg loxo ci ñenn ñu nga xam ne day njortu nañ ni dugal nañu seen loxo ci mbir moomee ñu wutali aéroport bu Ndakaaru ak mission hectares yi nga xam ne jamono ji nee nañu dey larme bi moo ci teg loxo ndax nag Dakar Times moo ñuy xamal ni kii di njiitu jëwriñ yi ak ki nga xam ne moom moo jiite APIX ak ki nga xam ne moo toog ci bopp caisse de dépôt et de consignation de war nañoo leeral lu jëm ci mbirum 800 hectares yu aéroport Léopold Sédar Senghor ndax ñii di l'armée bi day li nga xam ne moom la ñu occupé mooy rek batiment yi mu des nag beneen wàll bu nga xam ne Dakar Times mu ngi xam ne ni ba tey kenn leeralul ana lan lañ ko nar a doyee ndax njiitu réew mi Macky Sall dafa newoon day la ñu nar amal lii di la des affaires aéroport Léopold Sédar Senghor wutali aéroport bu Diass foofee nag coow lu metti moo dox ci diggante 2AS ak ñii di waa Télium logistique arrêté ministériel bi di numéro 19419 ak bi le décret joxoon monopole assistance bi ñii di 2AS day tax na ba jamono ji ñuy jàpp ni noppi gi nga xamante ne waa APIX douane ak ñii di ministère bi ñu denk lépp lu jëm ci transport aérien noppi nañ ko day moo waral ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk day di ay transitaire bëgg wone seen bopp yéenekaay bi di libération fësal ci xëtam bu njëkk ab autrichien bi nga xam ne fii ci Sénégal ci ndakaaru lañ ko daal di enlever ñi ko def nag muy ay nigérien waaye tamit benn xale bu jigéen bu nga xam ne moom autrichien bi day moom la ñëwoon seet si ngir nag def ko soxna yéenekaay bi di libération ñëw na ci ni mu gën a yaatoo ci naka la waa dikk daal de def kon ba teg loxo defkatu ñaawteef yooyu le le soleil yéenekaay di ñu xam léegi relation yi dox ci diggante Sénégal ak Luxembourg bi la coopération nag fanweeri at muy faral di yëngu ci ay domaines yu bëri yéenekaay bii di la Soleil di ñu xamal itam ni ki nga xamante ne moom mooy Son Altesse Royale Henri Dey jamono jii dafa daal di rek sopp lool li nga xam ne moom la ñuy amal fële ca pôle bu jam ñaajo Le Quotidien di fësal lu doy waar lu am foofee ca Libéria ginnaaw bi kii di George Weah doon prêter serment Alpha Condé day di njiitu réew bu Guinée ginnaaw bi mu tàddee ci manifestation boobule yegg si doon sàkku nag ñu daal di koy teg ci présidium bi loolee mujjuta antu ba tax na mu daal di gedd mbir ya wax ci wàllub tàggat yaram ak stade yéenekaay mondial 2018 bi mu fësal ci xëtam wu njëkk nataalub gaynde Sénégal mu bokk ci kii di Sabali Armand ak Ferland ñooñee ñëpp nag ñu jàpp ni ñoo nar a def li nga xam ne moom la ñu dippee la révélation ñu jeexal ak sunu lamb mi nga xam ne nag fësal na combat bi nga xam ne moo war a dox ci diggante Lac de Guiers 2 ak kii di le Roc des Parcelles Assainies sunu lamb yéen kaay di ñu xamal ni rek lu tollook ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukki village ñu ngi ci ginnaaw Modou Lo dëkkub xarañ loo bile nag nee nañu duñu bàyyi dara dinañu dugal seen loxo ci lu jëm ci wàllub mystique ak it ay ñaan yi nga xam ne jàkke yi ñu ko fay faral di def ñoom sax xam ne nañu nii bu Modou Lo daanee kii di Lac de Guiers 2 dinañ ko daal di féete foofu bu baax a baax daal di koy sargal ñu yendoog jàmm